nekk président de la république Sénégal le 24 février 2019 incha allah wala macha allah euh, dinañ ci liggéey def suñu kéemtulaay kattan lu waral loolu nag ah, mooy ne euh, gis nañ ne Sénégal dafa war a am ay euh, réformes yu ñu war a def ci suñuy kuréel yi suñuy institution yi di président de la république assemblée nationale justice ak administration gis nañ na ko Macky moo doon wax le parti la patrie avant le parti avant avant parti gis ngeen na mu def suñu administration politiser ko complètement justice bi lu ko neex lay def mu koy manipuler nu mu ko neexee bu ci mujj mooy conseil constitutionnel ak parrainage gis ngeen tamit assemblée nationale moom bañ na ko sax bañ ne c'est l'annexe du palais alors le président de la république ñuy foyee fonds politique yi di def lu ko neex loolu yëpp gis nañ ko xam nañ ne baaxul ci Sénégal baaxul ci koom-koom bi baaxul ci jeunesse bi baaxul ci jigéen léegi nag ñu ne dañuy daje quatre candidats de l'opposition kii di Idrissa Seck Ousmane Sonko El Hadji Sall du PUR Madické Niang ñoom ñëpp gis nañ leen waxtaan nañ ak ñoom ne leen ñun daal jàpp nañ ni réforme yii moo baax ci Sénégal président Idrissa Seck nag moom moo ne d'accord na ci lépp moo ne d'accord na ci gëm na ko dana ko def incha allah loolu moo tax ñu ñëw fii tey signé plateforme bi ñu ñett